waaw lël la bu nga xam ne bu am solo la ndax euh, xam ngeen ne ñaari at ngi nii président de la république Macky Sall taxawal euh, benn centre bu nga xam ne li ko tax a jóg mooy ëmb fonction publique locale mais aussi mooy former euh, ñi nga xam ne ñooy agent collectivité territoriale yi mu nekk lu nga xam ne lu am solo la ci dispositif dispositif la bu am solo pour que fonction publique locale ñu mën koo jëmmal euh, jëmmal bu nga xamné euh dina may euh, état bi mu gëna xam euh lan ñëriñu euh agent yi nga xamné ñoo nekk ci collectivité territoriale té te bu am solo déjà ñom ñu commencé ko moy, euh, weer yi ñu genn mboolem fu maire yi nekk wala conseil départemental centre bi yónnee na fi ay ndam bañu xam tay lim bi nga xam ne yëpp moom mooy liggéey wala ba mooy xëy ci collectivité locale yi nekk Sénégal te loolu lu am solo la euh, xamuñu ko woon ñoo ñu xam aussi ci lim boobu ñan ñoo ci euh, euh, ña lañ ci jël ci façon yu nga xam ne dëppoo na ak yoon ak ñan lañ ci jël ci façon bu nga xam ne xaj na dëppoowul ak ak yoon ci biir ñooñu tamit ñu xamaat ci ñeneen ñu nga xam ne gis nañ ne kayit yi ñu leen laaj yëpp Euh, joxé nañu ko ndax man nañ la jël ci ñu dëppoo ak yoon té do mëna joxé ay keuyit pour que ñu mën laa limaale alors yooyu yëpp nag xam nañu ko te dañu ko euh kilifa gouvernement bi euh, le premier ministre Amadou Ba pour que mom tamit waxtan ci ak président de la de la de la république fofu lañu fofu lañu fofu lañu toll mais so défé liggéey boobu ba pare nag dafa am benen liggéey bu ci bu ci top alors ñoñu nga xamné identifier nañ leen faut d'abord ñu xam nu ñu tëddee ñaan ñoo ci nekk fonctionnaire ñaan ñoo ci nekkul fonctionnaire ñaan ñoo ci am ay contrat euh, ñaan ñoo ci amul contrat ñaan ñoo ci am ay CDI ñaan ñoo ci am ay CDD loolu lépp dafa am solo pour ñu xam personnel bi nan la tëddee ensuite ñu xam aussi euh, yan qualification la ñu am ndax am nañuy diplôme ndax am nañuy métier ndax am ñuy diplôme ban formation la ñu am euh, yan catégorie la ñu bokk loolu tamit daf ci am daf ci am solo leneen li ci des mooy suñu gisee ne am na ñu nga xamné té lool dina du ñak soxla nañ aussi ñu former leen euh, ñu sét laaj xam yane besoin de formation lañu lañu am parce que xam ngeen dañuy dem dañu nekk ci fonction publique euh, locale euh xamna buñu ñu demee ba ci kan du ñak ñu taxawal kurel bu nga xamné moy recruter agent yi nekk ci collectivité euh, territoriales yi de telle sorte que euh yoy yep dañ ko wara xam alors diagnostic bi nak mom lañ doon lancer tay léegi nag ñoom daañ leen yóbbu ci euh, dëkk yi ak dëkk dëkkaan yi gox yi ak gox goxaan yi suñu sayto ba pare nag ñu bindal ñu rapport su ko defee ñu mën ko jébbal euh, suñuy kilifa.